moo taxaw wax devant tout le monde gatsa gatsa wuju ma fenn justice bi Macky Sall ko moom. a ah, ñu àtte ko tey mu jël junniy avocat nan di dem Ziguinchor di dem Cour suprême di dem na waroon naa bañ a dem. <laughs> ok gars yi bon maa ngi ñuy ñëpp di leen ziar ku ci nekk sa tur ak di leen jox bu baax yen ñëpp seen wàccuwaay bu baax baax di leen nuyu di leen bëggee di leen namoo di leen safoo di leen tiitaroo ndax yéen laa am ba tax na gars yi Euh, dama leen fàttali ngeen like vidéo bi vidéo di leen ko like xam naa ne bu ngeen ko like mais di leen koy fàttali kon boog like leen vidéo yi ba ngeen daal di partagé ba tey aussi maa ngi ànd ak sama waa ji muy Serigne Saliou Mbacke borom jurul képp koo xam ne bëgg nga ci garab gi ñu borom jurul gaawal gaaw nga contacté ko ci numéro téléphone yi ma leen defal ci suuf incha allah boo ko defee doo ko rëccu aussi képp ku bëgg mu seetal defal la ay ñaan gaawal nga contacté ko incha allahu taala boo ko defee doo ko rëccu parce que li ma neex ci moom léppam alxuraan la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 selum baa ci kanam ah kon day jële bi na <laughs> ah man de sama waajo kon gis moko metti xamna naa ne am lu ko metti bu metti Elhadji Diouf ah metti am lu ko metti tey de gisuma ko mais xam naa ne am lu ko metti waay euh, li ma leen wax eh. <laughs> ok tëb di cëppi ci sigee sor nan day bok day bok fatani sor comme Dakar tribunal bu nawa nawa nawla te justice dafa am ay ay ay étage comme kër yi dañu amee rez de premier étage ba cinquième wala dixième étage mais comme ñu bëri amuñ xam-xam <laughs> dof yi tëb di cëppi cëppi gagné nañu loo gagné <laughs> waaw si nga sox lañ gagné woon fan la mujjee ñi jàngul droit xamuñ procédure bu la neexee ñu kontaan olam Njaay mu ne njëkk a fecc taxul mu jee géew olof Njaay nee na njëkk a fecc taxul mu jee géew fecc nañ Ziguinchor xalagu Cour suprême feccaat Dakar ëllëg ñu xalagu waat Cour suprême kon ñii cëpp cëpp tey <laughs> dama leen di xool di ree dama leen di yërëm <laughs> ma ni atte taaga jeexul mënuñu exécuter tous mané fi la ñëwoon naan ci gesso até na nañ dem ah na DG déposé mais cour cour suprême kérok bi mu ne atté si gesso baaxul bu fekkoon dugaloon de Ousmane soko ba paré ko duñu def da nga gënë waat encore te ñu dugalaat ko dina so yu gënë waat ko mu lolu mu lo xel la lolu moy dof yi waat te ñu droit dégg na ci kenn ko xamné dafa fena fen ba ñuul kukk ngeen jégal ma ci kaddu gi kilifa yi bo jangul nag nek baye ma ngay nek ci droit nañ dem nag xeex bi jeexagul gañe nañ benn bataille si Ziguinchor ñu duma leen Cour suprême gañe waat nañ benn bataille fii bu ñu demee Cour suprême ñu duma waat leen da ngay gañe benn bataille ba gañe wala la guerre. mais nañu may ma oh. eh, yaa émission bi dañuy soog commencé. waaye nag ah dof moom dof dof lay nekk ku xamul xamu kuy fecc te ñu ne njëkk a fecc taxul mu jëy géew yow géew bi jeexagul. combat bi jeexagul ngay fecc yow wéroo. dama lay fekk ah, nga ni. fe fe waaw immédiatement dama lay fekk foofu noq. yow wéroo. allo. <laughs> neex comme làmb dañ naan comme làmb reenu ñàmbi la doo xam fu muy demee mais li wóor mooy boo daanoo am nga droit laaj beneen combat. est-ce que xam nga ne maa la mën aller ak xam nga loolu. yow wéroo. allo. <laughs> <laughs> da ngay yéeg fa max na nekkee benn encore fa gën a kawe ne ah ala ah, yéen ah, daan nañ ma fii barki Seydina Mohamed buñ jëloon oto biis bii horaire jëm waalo are buñ dem ma daan yow wéroo <laughs> waaye nag njëkk a fecc taxul mu jéegeew même boo gañee yoon may na keneen ki mu yéeg te bu yéegee mën na la gañee kon ko xamul mooy tëb di fecc di gañee na comme si ngay soor ba dina fecc si ngeen soor cour suprême ñuy jooy tey ñu ngi fecc ñu ne la war cour suprême du jooyaat est-ce que juge dana weddi seen bopp est-ce que cour suprême dina weddi boppam xam nga ki ñuy fecc tey amuñ xel ah bu ñu xamoon droit xam procédure dañuy jooy duñu fecc. kii dof pilis la. ah dee waay dee. <laughs> man de mosuma gis àttekat bu am xam-xam di weddi boppam cour suprême moo ne lii notification bi jaar na yoon donc Ousmane Sonko yëgoon na ni dañ ko war a jee kon forclusion am na waaye léegi bu ñu nee loolu amul nañ parce que juge suprême dina dina weddi boppam kor kay jun dañu koree rek dañu soog di xoolal dañu xaaxataay <laughs> ñun dañu kontaan ndax affaire bi day mel ni xoolal ñu may la avance ci benn course ñu jiital la nga am 100 mètres ñu ji jëm def 2 kilomètres ba xam ne maal dàq daw loolu am na léegi nag ah, kii dañ koy may tokaara dañ koy may tokaara dañ koy may mu jege mu avance mu ñëw double ko romb ko ñoo ci ci ligne bi d'arrivée bi may ma gagné kon kañ ka kuy na coupe bi. <coughs> xam nga koo may bu yoxal ko mu départ di di dal nga ñëw ko vif kan moo gañe affaire bi du léegi de affaire bi ca fin la li ñuy wax la décision définitive mooy sax ñu réintégré la boo ko amul nag kenn du la réintégré mooy lan mooy doo bokk ndeysaan Hallo. Cour suprême weddi ni ko lii nga àtte baaxul ndax signification huissier bi nii ak nii la demee tey kii ñëwaat li Ziguinchor waxoon waaw Cour suprême la lay wax. moom it la ma ko defee hey la ma waxoon laa waxaat kat yow Dakar da ngay font kon la ma waxoon laa waxaat lépp jaar na yoon kon saa waay mënul bokk. dégg naa ci kenn koo xam ne dafa fen ba ñuul kukk. ngeen jégal ma ci kàddu gi kilifa yi. kon benn nit bu àttee Ziguinchor benn nit bu àttee Dakar boobu ku tax nga tëb ñu gañe xamoo dara. Ousmane Sonko bu ko neexee dem jëli fiche parrainage am. laaj ko ko moom affaire am intéressé wu ma. waaye moo xam buy jëli ceebu jënam ak wala bu jëli mbàjj wala ci sama yoon. ku jëli sa mbaa mbàjj pour tëdd kaso ba ci sama yoon. ku jëli sa dépense ba jot ci sama kooku damay intéressé. waaye ñii ñii ñii muusuñu yow yow nga jaaroon foofu ñu diwa woon la nga fecc fecc fecc fecc ñu ne da nga teel a fecc ah yow da teel fecc ah cour suprême tas sa yaakaar ñuy demaat cour suprême booba nga taxaw di bondewaat yow doo nit yow yee wuloo de yow de koy nax sa <laughs> yoon moom. Il y a atte bu njëkk du bu la décision définitive xamul droit wala nga dof rek première décision comme Ziguinchor wala Dakar fàtte ne dafa am ñu nekk ca kaw attekat yu mag tax nga dof naan nga dof la mais Eh, tët tët maître El Hadj Diouf siisu man la quoi man xawoon naa ne fii lay def lii lay mujjee maître du bàyyi moom daal nee chaque jour moom sunko dafa war am defet daal <laughs> même bu ñu jox ko dëgg maître moom nee far am dëgg moom defet la am chaque jour ah man de saa lii kenn mosu koo gis nag mais El Diouf mi ah xam naa ne moom Sonko xawma lan la ko def mais daal man man man jaaxal na ma lii moom nekkatul en kase moom <laughs> ah on damaa mujjee jooy man maître moom kañ leen nangu sax moom nit ñi kooñee lañ ko jàppee quoi nee na day def appel ah sama gars yi <laughs> maître El Hadji Diouf a ngoog ñoo ko bokk consommé ndoo <laughs> ne commentaire allo wala kano